donc euh, fii mooy route de Dakar 1 quartier route de Dakar 1 donc fi lañ terminé donc la visite bi nga xam ne dañu ñëwoon pour euh, gisal suñu bopp fi nga xam ni fi lañ bëgg a def extension réseau électrique indi fi courant nu mu mel waxtu wii nii nii nan la mel tembe loolu ñu xam ko dafa baax Euh, loolu lañ ñëwoon donc doon ko gis si donc route de Dakar 1 daaw extension bi ñu defoon bokkoon na ci sax d'ailleurs donc boo jëlee côté Bonilay ñëw si ci garage mécanicien yi donc longer tali nationale bi donc daaw foofu defoon nañ ci extension réseau déjà donc bii kon mooy euh, ñaareelu yoon boo xam ne ñoom dañ ciy bénéficier wu donc pour dire tout simplement que euh, programme bu am solo lañu nekk di dérouler ci wàllu éclairage public donc wax naa léegi nii dañuy monter ay làmp làmp yu lakk wala ay horloge yu déréglé ñu changé ko nangam nangam mais je pense que bii moo ci ëpp doole mooy fekk ay euh, zone yoo xam dañ nekk biir Thiès te amuñu courant nga fexe courant agsi fa mu jëriñ ci éclairage public bi mais jëriñ kër yi nga xam ne ñoo nekk aux alentours pour ñu mën a xëcc courant ba estabiliser aussi seen courant loolu je pense ça me semble très important donc euh, loolu lañ ñëwoon doon ko xool si donc si on résume on fait la synthèse mooy donc jaar nañu euh, axe rond-point Stade Lat Dior jëm euh, garage Kalando Sindiaye foofu donc dañuy changer rek dañuy indi ay lampadaire def ko fa am na réseau ba pare donc lampadaires yi la ñuy changé donc mu nekk axe boo xam ni maintenant daanaka mooy entrée Thiès aussi ci la bokk très fréquenté ginnaaw loolu ñu visité yeneen cinq sites donc commencé ko euh, sud du stade wetu kër euh, talibi bi kër gouverneur foofu amul réseau donc extension réseau lañ fay def bi ñu jógee foofu ñu dem euh, cité Ousmane Ngom ñu gën koo xam ci Congo foofu tamit extension réseau lañ koy def bi ñu jógee foofu ñu dem ko foofu SAPCO moom moo gën a yéeme parce que ni mel doy na waar lool lool lool lool fi ñu visité Thiès noonu la même chose fa lañ jógee nii moo am ñaari site ci affaire bi donc ñu terminé fii route de donc c'est pour vous montrer rek euh, li ngeen ñu sasoon ak li ñu waxante woon ak yéen donc ñu ngi ci donc fexe ba. au terme de ce mandat si on fait le bilan euh, incha allahu rabbi yéen seen bopp yéenay constaté seen bopp ni wax dëgg yàlla ay la yéwén euh, bilan bi nga xam ni l'équipe municipale que j'ai l'insigne honneur de diriger bilan bi mu def euh, mucc na ayib voilà donc loolu rek lañ ci jublu bu ko defee bu boobaa après nag ngeen def seen jugement ngeen àtte loolu rek moom solo ko donc je pense que loolu la donc ah, bien sûr donc euh, on était sorti ce soir comme on a l'habitude de le faire hein, donc euh, c'est pas la première fois que je le fais je le fais parfois euh, sans tambour ni trompette moi-même hein, sans être accompagné par personne euh, je ne reste pas une semaine sans le faire donc choisir euh, un des quartiers ou un des axes de la commune euh, faire des, des visites, euh, vérifier le travail qu'on est en train de faire. Parce que je rappelle que euh, ça, c'est une, euh, c'est une méthode enseignée par euh, le deuxième calife de l'islam, qu'on appelle Omar Ibn Khattab. il restait très tard la nuit, sortir, lui-même constater de visu ce qui se passe dans les quartiers. Donc, euh, donc il ne restait pas seulement dans, dans son lieu de travail, donc, et il ne se limitait pas seulement aux renseignements généraux. Lui-même, donc il voulait, et il le faisait constamment, descendre sur le terrain lui-même, sans être accompagné par personne, pour voir de visu ce qui se passe euh, dans, à Médine. Donc voilà, donc, et tous les bons dirigeants le font, n'est-ce pas donc, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent lorsque nous sommes dans nos bureaux, nest pas Parfois, on peut avoir des informations erronées, ou même si elles sont fondées, mais je pense que l'information que vous avez vérifiée vous-même par vos propres soins n'a pas la même teneur que celle qu'on vous a rapportée. Donc, raison pour laquelle, euh, moi, je pense que, en tout cas, c'est une méthode qui me va, qui me convient avec ma nature, avec mon tempérament. Il était, <coughs> il était question aujourd'hui de, de, faire la visite de différents axes euh, sur lesquels on va réaliser une extension réseau électrique. Après l'avoir réalisé l'année dernière sur euh, l'axe, euh, la rue secondaire de Somme, à Pensa par Palais d'Or vers Bédéacine, la rue qui mène vers la cité Elage Malixi. Euh, cette année aussi, nous voulons faire de même pour d'autres axes et pour d'autres quartiers. Donc les quartiers concernés sont le sud du stade, donc la rue, la route euh, vers euh, la demeure du gouverneur, euh, le quartier Sito Ousmane Gom, plus connu sous, sous, le nom de Congo, euh, le quartier Sapco, le quartier Thiesnon et le quartier Route de Dakar 1. Donc le Route de Dakar 1 qui bénéficiait encore de cette extension, parce que l'année dernière, on avait déjà réalisé une extension là-bas, vers euh, euh, le magasin Bonilé en passant par les ateliers de mécaniciens. Donc voilà un peu ce programme, ce programme ambitieux que nous sommes en train de déployer. Je rappelle aussi au cours de cette visite, on a euh, visité euh, l'axe rond-point Stade Ladior, euh, rond-point Clando, les Clando de Sindia. Donc cet axe n'est pas concerné par l'extension réseau, mais est concerné par le changement de lampadaire. Donc là-bas, on va le réaliser le plus rapidement possible. Donc voilà un peu l'état dans lequel se trouvent les différents axes aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, euh, sur lesquels on va réaliser l'extension réseau. Après ce travail, Inch'Allah Rabbi, on fera une autre visite pour vous montrer vous-même, ou bien pour vous faire constater vous-même le changement qu'il y a eu. Je pense que c'est ça qui est, important dans ce que nous sommes en train de à terme, nous voulons votre propre jugement. Et voilà. Donc je pense que nous sommes, euh, en tout cas du point de vue personnel, nous sommes très satisfaits de ce que nous sommes en train de réaliser depuis qu'on est à la tête de cette mairie, et particulièrement dans le domaine de l'éclairage public. Donc voilà, on vous remercie et on vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah. Merci.